daa leen ko wax di daa yàgg naa leen ko wax di ngeen am taw taw rek lañ ko may xaas la ñu am ñoom ñun fekk nekk nekk si liggéey xas nekk ci xas yi xaas la ñu am xaas la ñu am bu wér a wér a yoo xam ne tawee ba ñëpp war nañ te ngeen dund ci fàggu yàlla nag dañ ko bale xaas xaas ngeen am waxuma tawfeex tawfeex ku bëgg sëñ Tuubaa am na waaye yéen am. mbokk yi bàyyi xel xasida ak wasilatu ruboox di mu ñu ngi daanoon xabli dawaa man hubba kulli muslimi bil mustafa wa rawda kulli mi suñ bi doon waxee yàlla na ko maa ngi lay ñaan nga may ma ci luy sax ba faw ma bëgg bépp julit ci dara jaay ka ñu tànn ka waaye nag yàlla nag ma tàggatal bépp kàccoor moom lay ko ne wasilati kooku mooy sama sëriñ kooku nga xam ne danga may may ma bëgg bépp julit ci dara jam kooku wasilati mooy sama sëriñ bi dox sama diggante ak yow kooku nag wasalli maa ngi lay ñaan nga julli alayhi ci kawam su ma gannaaw ba nga jullee ci moom sallama na nga dolli góolu alayhi ci kawam ba tey waaye nag bu mu yem ci moom rek bil ali na ànd ko waa këram ña waaye bu mu yem ci waa këram ña rek nga xam ne boo waxee waa këram ña saxaaba yi dugg nañ waa këram ñëpp dugg nañ waaye mu ne waman a képp koo xam ne inta intama askanoo na loxo jëm ci yonent bi képp koo xam ne nekk na ci diina doon doon ab jullit rek gannaaw ba nga jullee ci yonent bi ak waa këram ak saabaam yëpp képp ku nekk ci diina ji fa tabaarakallahu di pratique l'islam rek julli ci moom moo tax ma ne wasali maa ngi li ñaan nga julli alayhi ci kaw yonente bi su ma gannaaw ba nga jullee ci moom ba noppi nag salama na nga sëlmala alayhi ci kawam ba tey waaye nag bila ali ànd ko waa këram ñeeg yëpp waaye nag waman ak képp koo xam ne intama askanoonu loxoo jëm ci yonente bi rek julliwaaleel ci moom kon nag julli gi yaatu na sëriñ bi ne najaytani fil bahri min makri siraar fa ruddani lil barri basir bil xiyaar mu ne yow sunu ba léegi rek mu ngi sant najaytani musal nga ma fil bahri ci biit géej gi min makri siraar ci pexem way yiis ñi mu jubli ci tubaab yi ko yóbboon ci géej gi ñoom lay tuddee seen pexe yu bon yañ jëloon di ko teg nee na ko sun borom yaa ma ci musal yaa ma ci génne ba mënuñ ma lor moo tax mu ne musal nga ma ci biit géej gis nga kon ci biit géej la nekk moo tax muy indi xarafu jar wu ñuy wax fii fii moom mooy mbir mañ dugal ci biit mbir loolu mooy fii moo tax mu ne najjeeti ni musal nga ma fil baxri ci biit géej gii ma nekk min makri siraar ci pexem way yiis ñi seen pexe yu bon yañ jëloon yëpp di ma ko teg musal nga ma ci ba nga xam ne fa tabaarakallahu manuñ ci man dara kon musal nga ma ci géej gi kon nag soxla naa ñibbi senegal kon nag foo rëddoonee yàlla nag ma delloo nag lil bari ma jëm ci jéeri ja waaye Basir yàlla na nga bégalee bii ci sama jëmu ji alxiyaar tànneef ya allahu akbar mu ne gannaaw boo musalee ci biir géej gii ma nekk ci pexam way yiis ñi nag ma delloo ma jëm ci jéeri ji jéeri ji moom nit ñu baax ñaa fa nekk su fa su ko demee nag mboolem ñi xam ne ay xiyaar lañ ñu baax ñeeg ay taalibeem ñu baax ñëpp fa tabaarakallaahu dañuy béggee sëriñ ko da nga cey dégg ne sëñ Tuubaa koo xam ne maanaam ëmbal nga ko maanaam ab kañaan wala ak mbañeel mooy safara nitu nitu safara nga waaye ku bañ Sëñ Tuubaa ñi ma ngay waat ñi ma ngay waat ci ab kaamil ne ku ko amul benn tomb fa yàlla amul benn tomb fa yàlla alxiyaar la wax nee na nag ma delloo ci jiiri ja la waxoon rek baa yaxtu fil baxri taxta sajra wal baxru musbidan wa hawli fajra nee na jaayante nag yàlla ci roon garab gi waaye nag jaayante ke bi mu nekkee ci roon garab gi di bind géej gi rek ma ak nasaraan si nasaraan si bon si rek waaye mu demee ci njaaram ne baa yaxtuhu fil bari léegi jaayante waan naag yàlla ci biir jéeri ji te wal baru tayyibun wa hawlil barara jéeri ji nag jéeri ju teey la te ñu baax ñi képp ñu ma wër moo tax jamono ci nekk day ñaan yàlla mu delle ko ci jéeri ji ñax ñu baax ñi ñu fa nekk raw rawatina lu mel ni gànnaar nga xam ne suñu borom moo ko fa tegtal ba mu tuddee ko ardul mutabarikiina ardu na loolu yëpp suuf way baax ne moo ta mu ne foo ruddoo nii yàlla nag ma delloo lil bari ma jëm ci ji nag waaye nag basir basir yàlla na nga bégalee bii ci sama jëm ci alxiyaar tànneef ya mooy ña nekk ca jéeri ja doon ay tànneef ñu baax ñëpp nañ bëgg ci man ci sama tukki bi nga xam ne jawfal faralil wara mislal maarina waaye xataa tu basira man xat kaana xasnaana te wala xad këram na mu ne yàlla mu mel ni yàlla defal na ko ko ndax wax naa leen ñaareel lum ñaan yàlla rek yàlla danaa ko defal naa la ko loolu kay soo ko bëggee léegi mu am mu ne ko radiitu gërëm naa an ka ci yow radiitu gërëm loo naa an ka walis la saakiran mbir moom may aji cant bi xalimi ci sama xalima gii yaa xayra mursidin woo naa la yow ngën ci aji jubal waaye nag wa xayra munhamid tey ngën ci aji xéewalee mu ne yàlla bég naa ci kontaan naa ci gërëm naa la dëgg-dëgg gërëm waaye nag di la sant ci sama xalima gi fu ma toll damay bind di cant rek fu ma toll rek maa ngi lay sant moo tax sëñ Tuubaa dafa doom dafa dem ba doon abdan sakuuran abdan sakuuran wax mi ni an faasi di nga xam ne lépp luy yàq suñu borom da ko ci musal ab santkat kenn du ko mën a lor wax na ko ci xasida am ko tudd nuru daare ni habdan sakuran wax mi nii an fasidi doon naa habdan sakuran waaye nag ba noppi nag doon koo xam ne dañ koo xaar ci lépp lu yàq waaye doon na habdan xaniyan bil kitaabi hendaka wax na ci biir nuru daare ne habdan habdan habdan maanaam muxniyan la habdan xaniyan mooy jàmm boo xam ne dafa doylu maanaam kurut boromam waxut ci dara waaye nag ànd ko alxuraan fu mu toll waaye nag fa yow moo tax mu ne ko gërëm naa la waaye nag di sant ci sama xalima gi kon nag woo naa la yow mi nga xam ne yaay ki ngeen ci aji jubale te yaay ki ma jubal yaay ki ngeen ci aji xéwalee te yaay ki ma xéwale lii yëpp su koy wax rek day ngelbatu di wane ne yàllaa ko jubalal boppam yàllaa koy xéwale boppam moo tax mu ne gërëm naa la di la sant sama xalima gi yow mi nga xam ne yaay ngeen ci aji jubal waaye ngeen ci aji xéwale daal ne man képp koo xam ne am ma jublu na am ma maanaam jëmale na baaban naa fi xeen say bunt yow yàlla muy aji jëriñi ji rasaaxi tey aji wërsëgale ji nee na kooko aaba buy dellu li li jëm ca aaba dana dellu li un lii jëm ci ñoom maal arsaxi andi ko wërsëg nee na yàlla ku jublu sa buntu yow mi tudd naafeen mu jublu la rek yow mi tudd arasaaxu di wërsëgale di jëriñe te képp kuy jëriñ yaa ngi koy jëriñ ci sa tur wii di naafeen comme moom mi ngi ci géej gi nag léegi dafa ñëw ci buntub naafeen ak arasaaxu yàlla mi tudd naafeen ak arasaaxu léegi nag soxla na ñibbi ca bokkam ya ñam bàyyoon ca Touba waaye nag balaay dem na am lam yóbbaale ndax kuy tukki ku ne am nga sër ca ba yóbbaale sa jaboot moo tax ma ne man képp koo xam ne am ma jublu na mooy jëm na rek baaba naafeen say buntu yow yàlla muy aji jëriñu ji waaye rasaaxa tey aji wërsëg la ji kooku aaba dana dellu li ah lii jëm ci ñu ñam maal arsaax andi ko wërsëg maanaam daal ku taxaw ci buntu bi yàlla di ko ñaan kooku yàlla dana la may la ngay ñaan boo delloo sa njaboot da nga ah, loolu la ci moo tax mu ne ko anta mu mel dafa jàkkaarloo yàlla naan ko anta yow alxasibu yaay ku am ngor alxasibu day tekki yu baat yu bëri waaye fii moom alxasibu ngor rek la fay tekki ngir tur yu mu koy bëgg wax moo tax moo tax mu ne ko ante yow alxasibu yaay ku am ngor ki alwaahidu yaay kenn ku wét alqaharu yaay notaakot ki noot lépp waaye nag anta yow alwakilu yaay ki ñuy wëkkil yow rek la ñuy wëkkil ay mbir waaye almaanixo yaay aji tere ji aljabaar yow yaay ki nga xam ne yow yaay dëgg dëgg mbër yow yaay ki am kattan mu ne ko yow yaay ki am ngor noonu liñ may def liñ may teg yëpp yaa ngi koy gis waaye waaye waaye am ngor gi rek a tax yaay kenn ku te soxloo ku la wéttali waaye yaay ki noot lépp wallaahu alwaxidul qaharu gis nga ma tax gis nga alwaahidu alqaaru foo ko xoolee ci alquran rek daanaka ñoo toppalante fu mu ne alwaahidu rek xaaru la ciy teg gis nga loolu kattanug yàlla ak sañ-sañ la waaye nag yow yaay ki ñuy wakiilu ku wakiilu ku dul yàlla rek da nga daanu da lu sëñ ba jaxte ji wax ne am kilifaay li am solo boo ko amee ak am solo waaye boo ko amul ak a ñàkk solo ta ku wéedu rek neexa bu max waaye ku wéedi ci yàlla rek wa ala llahi fal yatawakkalil mu'minuuna bëri na ci alquran qul hasbiyallahu na ci alquran suñu borom wax yonente bi naan yow yàlla doy na ma ci moom rek laay wéedu te képp ku wéedu ci yàlla du am gàcc tey ji ak ëllëg waaye yàlla mooy almaani mooy aji tere ji firi woon nañ ko démb mooy koo xam ne bépp musiba mu bëgg wàcc moo koy tere ba du yegsi waaye aljabaar suñ ko waxee ci nit gis nga aljabaar suñ ko waxee ci nit mooy kuy mbër mbër lu waaye du mbër waaye suñ ko waxee ci yàlla mooy ku am kattan mooy mbër dëgg-dëgg xam ne ku ko jàpp rek kenn yabut ko jàpp mu daan la kooku mooy aljabaar moo tax mu ne ko ante yow alwakilu yaay ku ñu wëkkil ay mbir waaye almaani yaay aji tere ji aljabaar yow yaay mbër dëgg-dëgg mooy ki am kàttan ba déggee ku am kàttan mooy ko xam ne mbër rek foo ñëwee mu daan la moom moom bu ngeen jàppoo rek daan na la kooku mooy ku kenn ñemut mu ne liqahaar walij bur wax mi nii min kulli soo wa ku fa ani kullama yuwasis mu ne yow suñu borom iqaar sa tur yii comme yaa tudd nii xasibu waahidu qahaaru antal wakilu maaniho jabaaru gis nga mu ne ko iqaar laa foog bar iqaar nootalal lii ñeel ma samay noon yëpp nootal ma leen waaye waj bur yàlla na nga jubbanti samay damm-damm lii ñeel ma samay dang-dang sama damm-damm yëpp li nga xam ne dama ko def war a tuub te def ko jàdd lépp boo ma nootalee samay noonu nanga ma jubbanti teg ma ci yoonu siraatu mustaqim ma tam ne iqaar yàlla na nga nootal samay noonu lii ñeel ma wajbul yàlla na nga jubbanti lii ma ko jubbantil waaye wax mi ni yàlla nag ma xaaral sa bopp min kulisoo ci lépp lu ñaaw na mu ko waaye wax mi ni yàlla nag ma xaaral sa bopp min kulisoo ci lépp lu ñaaw lépp lu ñaaw xaar ma ba bu ma ko gis ndax nafa maalik yi maasa ani xabla ruux yettin nee na yàlla muy aji moom sama moo may daqal lépp lu ma naqari njëkk ba koy gis moo tax mu ne wakku fa yàlla na nga fekk ba tey ani jëlee ci man mooy mu wëlis ma kullama lépp loo xam ne yu was wisu dana lépp luy jax-jaxe dënn nit ki te bokk na ci lay jax-jaxal dënn nit ki mooy si yu was wisu fii ci dóori naasi mi la jënit wanaas mu ki ci dënnam ba muy sikk sàkk di yaare xel ndax boromam la war a topp wala am bindee fi wala nangam wala muy dem ci loo xam ne day jax-jaxe ki loolu na ma ko fegal moo tax mu ne wakku fa na fegal xan nii mu wëlis ma kullama lépp loo xam ne yu was wisu dana jax-jaxe wajeex yàlla na nga jëmale lii ci man alxayra yiw yëpp wa kufa nga fekk xan ni moo lisma asarraxa yëpp dax ban waaye nag ba faw waaye nag wa taqbal na na nga ko nangu mu ne mboolem yiw yi ne da ko def almaxrifa yiw yëpp la ci jublu mboolem yiw yi rek na nga ko jëmale ci man waaye nag mboolem xay yi ba tey da ko def maarifa nag ma fegal xay yëpp waaye ñaar yëpp soo leen boole gis nga dax ban ñaanam day matale waaye nag mu ko nag wa taqabal mi nii mboolem samay xibaadaat yëpp samay xikma yëpp na nangu mu ne kun liya sarmadan bi jaahil Moustapha wa liya xab xel man si sidqan wa wafa mu ne kun yàlla na nga nekkal liy ñeel ma yow yàlla sarmadan ci luy sax ba faw nekkal ga bi jaahil Moustapha defee ko ci dara jaay kañu tànn ka waxaab yàlla na nga may liy ñeel ma xel man xam bu bëri wa sidqan ak dëggu wa wafa ak kóllëre matal kóllëre ka mu ne maa ngi ñaan nekkal ma ci luy sax ba faw waaye nekkal gi xoolal ci daraja yonent bi ndax yàlla lu mu xool ci daraja yonent bi rek ndax waxoon na ko salli ala la si bii tujibu yàlla jullul ci kaw yonent bi nga xam ne képp koy nangul ñaan ci dara jaam ci nga koy nangulee mu ne maa ngi yaa nga nekkal ma ci luy sax ba faw ci dara na nga may xam-xam bu bari waaye nag gu ànd ko dëggu waaye nag ak wafaa matal kóllëre la ma si ñëw yépp ci xam-xam ba ne danaa ko matal ci aalamul arwa lépp su ma wàccee ci suuf nga xam ne alwafa lu jafe la dañuy wax ne alwafa mooy li a jafe muy matal kóllëre moo tax euh, bi mee tagg jigéen wóorul ay nii lim leen njëkk a taggee ci xamat Suleymaana dane hóorun wafiyaati ay jonguma lañ yoo xam ne ñu am couleur duñ fecc couleur mu ko wutee nañu jigéen ne koo ci siq ak dara rek ay mbir rek mu daal di fecc couleur ma moo tax lu jafe la muy ixlaas ak sidq al ak wafa mu ne maanaam yaa nga ma xam-xam bu bëri waaye nag gu ànd ko dëggu waaye nag wa wafa ak couleur ma matal couleur yëpp tabaarakallah sama couleur yi ma siqal sama borom siq ak nit ñi ñëpp fa tabaarakallah ma matal ko te lépp matal na ko mu ne yaa rabbi yow sunu borom istajib ñaan yii yëpp may ñaan istajib yàlla na nga wuyul yàlla na nga nangul ñaan yëpp lii ñeel ma waaye nag wasalli maa ngi lay ñaan nga julli bi salaam gu ko sëlmal ali ci kaw yonente bil ali ànd ko waa këram ña wa sax bi ak ne mu tagg leen alkiram way tedd lañ ndax fu mu tuddee saaba yi rek ko ñaan yu am solo la ko te yaa wax ne udduhooni astajib leen kon nag maa ngi lay ñaan nga julli tey sëlmal ci kaw yonente waaye nag na ñëw ba ci waa ak saabaam ñi nga xam ne ju tedd lañ mu mel ni yàlla da koo nangul sax mu ne ko istajib na nga nangul lii ñeel ma fii maa ma daal la wayoon yëpp wamaa yet wamaa yijji ak lii dikk yëpp ci waaye nag bi jaay ci darja yonent bi waaye wa ajji la na yàlla na nga gaawee faraji sama teggeekuk tiis faraji sama wuññeekuk njàqare maanaam njàqare yi ma muur daal nanga nga gaaw tegg ko ci lu gaaw gaaw mu ne nang ma nangul samay ñaan yëpp moo xam ñaan yi nga xam ne la way la wala la nga xam ne dafa war a dikk yëpp yëpp yëpp yëpp ci kanam ñaan yi daal moo xam yowu yoon la ma bind ay xasida di ñaan wala ci biir géej gi wala gannaaw géej gi yëpp ñaan yëpp na ko nangu lépp ci darja yonent bi waaye nag tiis yu ma nekkee njàqare yëpp na nga ko tegg ci lu gaaw moo tax mu ne istajib yàlla na nga nangu lee ñan fi ma ma daa ca la wéy ci ay ñaan wamaay ji ak ci luy dikk yëpp ci ay ñaan waaye lépp bi jaay ci darja yonent bi nga koy nangoo waaye wa ajji la na yàlla na nga gaawee faraji sama wuññeeku njàqare léegi nag wéyi foofu la daane léegi xasbunallaahu jeex na léegi nag am na lu mu am am solo ñu bàyyi ci xel mu ne allahuma yow sunu borom inni man an xaytu gaawal naa taxaw yu yi sama wàccaay fil barri ci biir jéeri ji yawmal jummaati ci bisub aljuma fii awali safari ama sin ci njël njëlbeenu safaru ama jaysasin te mooy 1313 ci gaddaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gaawal naa sama wàccaay ci bi jéeri ji ci bisub aljuma ci njëlbeenu weeru safar ci ama jaysasin ci 1313 ci xasida gu ñuy wax bi hasbunallah wa ni'mal wakilu te la muy tekki mooy bi hasbuna mooy doy nanu allahu yàlla wa ni'ma eskay moom yàlla moom nga xam ne alwakilu mooy ku ñuy wakki lépp lii nag su ngeen ko bëgg xam da di dellu ci gannaaw sëriñ bi xam ngeen ne bi mu nekkee Mbàkke Baari bisub aljuma dafa am xasida gu mu bindoo tuddee ko xasbunallah wa ni'mal wakiilu defe naa ne firi nañ ko sax léegi nag diggante tàkkusaan ak timis ci la ko bindoon aljuma googu nag bi mu xëyee samedi ci la dem nag wuyu ju noon ba ca ndar wuyu ju noon ba ca ndar ci lañ ko woon mu dajeeg ñoom jéewal dem ndar léegi nag day fàttaliku na comme mi ngi ci géej gi gis nga waajoon naa ndax sëñ bi doroon wàcc waaye la taxoon ñu koy bind ay leetar muy yónni mantor na léeg-léeg loolu yëpp ba mu jural tubaab bi mer ba mu jural tubaab bi mer waaye loolu yëpp suñu borom musal na ko ci seen mer wa ngir lan bi lay faaraxtu nasaara jéewali wax xayri xataat bi laa tanaawuli maa ngi dajeeg noon yi ci jéewal waaye nag ci laa teqalikook ñoom ci seen ay bi ci seen bon bon yi seen lépp seen mer yi seen lépp te juluma ngàndaay di jaar ak ñoom xasida goog bi mu ko bindee ci la ko yàlla xamal na ko sangewu na maanaam sa lépp suñu borom aar na ko ndax la jiitu lool la tax ñi ko doon woo ba noppi nangutu dem mooy moom kanaa lépp lu muy def da ci am ndigalu borom te boobu amagul ndigalu borom moom nga dégg sëñ Moussa euh, sëñ Moussa Kane mi daari tout temps bi Mbàkke Baar kër gañ ko doon woowee de Mbàkke Baar la waaye nag lu tax mooy bi is ni xaaliqul baraadil moom lu tax demutoon mooy ndigalug yàlla la doon xaar xarajtu yow ma sappi saa mi no asal li xidmatil muxtaar fi san safar nga xam bi bi mu jotee ndigalug yàlla mu bàyyi ko ci làmmuñu yónente bi ci la ko yónente bi ne ko nga dem te bul wuy ju noon ya ta bul ragal dara nag fa tabarakallah booba yàlla aar ah, na ko sangoon na ko sëñ bi suñu borom wuññil na ko ay secret xamal ko na ko nga dem ci tukki bi ba ñëw kenn du la faat fa tabarakallah te loolu jox na ci ay seede fa tabarakallah yu bëri ci ba muy dem am na ku joxoon xasit ak asiru ci ndar te nam ko ko waxoon ba muy dëpp fa tabarakallah Cheikh Ahmadou Ndiaye maa bay nam ko ko woon noonu la dëppaatee nga xam ne kon loolu suñu borom lu ko xamaloon la laataa muy dem xam ne daf ne subhaana man li tajala fi safar san nata jay si sin waqiftu saa sama dane yàllaa ma fii ñu ne ma ahmadu jogal yaa war a liggéey yonent bi ci xaama jaysas muy 1313 léegi nag xasida googu lay wax ne maanaam daal préparé naa wàccaay wu gaaw ci bisub aljuma ci njëlbeen weer safar ci xaama jaysasin lan laa préparé mu ne hasbunallahu wa ni'mal wakiilu nga xam ne kon sëñ Tuubaa su fekkoon ne ne ci tukki bi la sol ab complet boo naan kii kat day tukki ndax kuy tukki da ngay sol yére bu rafet yéreem bu rafet bam bam sol ba nga xam ne noonu yi ñemewuñ ko waaye nag dana manik boromam kooku mooy xasida xasbunallaahu nga xam ne yére bu ko jot la ci lu ko mu ne xamitu man yaxsamuni min a darar min kulli seytaani boobu yére bu ko jot la muy xasbunallaahu ni'mal wakiil te mooy xasida gëm bindoon ca mbàkke baar yi laataa mu léegi nag moom lay wax na yow sunu borom man kat gaawal naa sama wàccaay ci biit jiiri ji ci bisub aljuma ci njël benn weeru safar ci xama jeesisin ci xasidi gu tudd hasbunallahu wa ni'mal wakiil waaye su ma gannaaw si nag an xaytu gaawalaat naa taxaw yu i sama wàccaay fil bahri ci biit géej gi nag léegi laa nekk keñ mu yomal yowmal jumaate ca bisub aljuma fii aaxiri safara xaami saysasin ci mujjanteelu safara xaama saysasin xaama saysasin nag mooy tolloog 1317 ci gàddaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon dafa mel ni suñu dafa bind ñaari xasida yoo xam ne boo ko doon wax ci waxinu olof dag naan mooy ñaari complète complète bi ba muy génn euh, complète bi nag ba muy génn la ko doon sol waaye complète bi bi mu ñëwee ba ci géej gi ba am juróomi at ci la ko sol ngir lan futti bële kon bee moom yàlla musal na ko waaye bii toon dafa bindaat beneen xasida gu tudd xasbuna laahu nimal wakiil xasbuna laahu nimal wakiil mooy xasida guñ firi léegi nga xam ne moom lañ génnee léegi nag war a jëmaat ci beneen xasida léegi nag xasbuna gii moom la bindoon ci biir géej gi ci maa maayomba naa gee nag moom mbàkke baari la ko bindee woon léegi nag mu ne yow sunu borom man kat gannaaw ba nga xam ne bind na ak xasiida gu tudd na wa ni'mal wakiilu te maa ngi ko bind woon ca jéeri ja ca bisub aljuma ci njëlbeen weeru safar léegi nag gaawalaat naa sama wàccaa ci biit jéeri ci biit géej gi ci bisub aljuma ci mujjanteelu safaru xaama say sisin fee daf ne woon ca njëkkanteel ba maanaam ci njëlbeenu weeru safar ci xaama jay sisin fii nag xaama say sisin ci mujjanteelu weeru safar la moo tax mu ne gaawal naa sama wàccaa ci biit géej gi fii ci biit géej gi la fee ci biit jéeri ji la xaside gii mu bind tuddee ko xasbuna laahu nimal wakiil ci biir géej gi la xaside gee nag ci biir jiir ji la yowmal jumaat ci bisu aljuma bee itam ci bisu aljuma la ko bind waaye nag bii ci mujjanteelu weeru safar waaye nag ci xaama say sasin 1317 waaye bee nag xaama jay sasin la ci 1313 moo tax man fii àqari ci mujjanteelu safari ama say mooy safaru ko ama say sasin bi xasbuna ci xasida gu ñëw xasbuna laahu nimal wakiilu la muy firi rek mooy bi xasbuna mooy doy noonu allahu yàlla yàlla mi nga xam mooy ku maanaam ay mbir nga xam ne kon lim jubloo wax ci max naa xasida gi mooy dafa taalifoon genn xasida euh, ba muy génn mbàkke baari léegi nag bi mu ñëwee ba ci géej gi ba am fi juróomi at taalifaat geneen xasida te ñaar yëpp xasbina leen sëñ bi tëggee waaye nag même baxru la waaye bokkuñ nu mu cee santé mu ne allah bu sunu bar maa ngi lay ñaan sëll yàlla nga dool xol wa salim ta nga dolli wóolu wa baarik ta nga dolli barke ala sayyidina ci kaw sunu sang bi muhammadin turam mooy muhammad wa ak ñoñam ña wa sax bi ak saabaam ya wa xaq yàlla na nga dëggalal rajaa yi sama yaakaar yi nga xam ne yaakaar naa ko fii ka ci yow sama yi nga xam ne yaakaar naa ko wu fii ak ci yonente bi sala yàlla na nga dolli xewal yàlla na nga julli allah yow yàlla taala yow mi aji kaw ali ci ko wul nga xam ne kon léegi day dem ci lii yëpp ay wisaar la léegi bàyyi na wëyi mu ne yow suñu borom wasaat yàlla na nga seedal lii ñeel ma fii xaasal yow mi ci bii ma nekk nang ma ko seedal ne bi an nii man Sëriñ Tuubaa nabastu sànni naa daf sama joñ maa lépp loo xam ne lam yëkku nekkul xayran di ay yiw lii ñeel ma waaye man ngi ko sànnee bi daf xikahoo ci ak ci sag joñal lii ñeel ma xan nii jëlee ko ci man loolu lu muy tekki sànni boo ko digg mooy bàyyi loo xam ne danga ko doon def ba yàgg nga ne bàyyi naa ko defatuma ko léegi sañ bi lépp lu dul yiw te mooy doon loo xam ne da koy naqari bu ñëwee ci moom léegi moom du ko joñal boppam doon na ko def nag laataa muy ñëw ci géej gi su ko dara musiba nar ñëwal rek mu taw tawsul ci yonent bi def nangam déedéet waaye léegi nag bi mu ñëw ci géej gi suñu borom dana ko bàyyi loolu léegi man luy ñëw ci yow xam naa ko ndax man maa yor mbiri maay dogal dara dootul la dal yow Ahmadu moo tax Sëñ Tuubaa ne bàyyi naa joñal sama bopp loo xam ne du aw yiw rek maanaam yàlla moo ma koy joñal waaye nag yàlla moo koy joñ maanaam jëlee ko ci man remplacé ma su ko waroon a def yàlla moo naan ma bàyyi ko moo tax mu ne nabastu daq sànni naa mooy bàyyi naa sànni naa dafee sama joñ maa lépp loo xam ne lam yëkkul nekkul xayran di aw yiw lii ñaan ma aw yiw rek yàlla ma koy joñal waaye nag bii daf xikkahoo ci ci sax joñal yow yàlla lii ñeel ma xan ni jëlee ci man yaa ma ci wuutu lu a joñ yaa koy joñ léegi léegi da ngay wàcc euh, da ko mooy dang naan illay ya man Serigne Touba wa nabastu sànni naa ba tey jal bi sama ñoddi jal bi mooy li nga xam ne da nga koo bëgg a ñoddi ci ay njëriñ léegi moom lay wax comme wax nag li nga xam ne mooy joñ muy ay lor léegi nag day indi li nga xam ne mooy ñoddi moom moo koy defal boppam wala yàlla ñi déglu ko moo tax mu ne illee man sëñ Tuubaa wa nabatu sànni naa jal bi sama jalbu maa lépp loo xam ne yan faxoon yi dana jëriñe wa maa ak lépp loo xam ne kaana nekk na xayran di aw yiw lii ñeel ma waaye nag bi jal bi ko ci sax ñoddil illiya di ko jëmee ci man fii duniyaa moo xam fii ci àdduna la wala axirati ak alaxira waaye lépp li husni san nii ngir refatug sama njorto rek bi ko ci yow dégg nga ko mu ne man sëñ Tuubaa lépp loo xam ne njëriñ la wala mu doon aw yiw ma war koo jalbu léegi loolu dama koy bàyyi yàlla moo ma koy jalbul moo xam ci àdduna la wala alaxira lii lu tax ma ko nag dama cee rafet njorto ne yàlla man na ko te dana ma ko defal moo tax mu ne illee man sëñ Tuubaa wana bastu naa mooy sànni naa jal bi sama ñoddil sama bopp maa yéen foo lépp luy jëriñee su ma ko war a ñoddi naa ko yàllaa koy ñoddi wama ak lépp nekk na xayran di aw yiw lii ñeel ma kooku jàll bi kahoo mu ngi nekk ci sa ñoddil yow yàlla illee jëmee ko ci man fii dunyaa moo xam fii ci àdduna la wala xete ak àllaaxira lu tax mu ne li husni sa ni sama njott bi ko ceew te yàlla sax defal na ko mu ne wa asaluka danaa la ñaan bi fadlika ci sa ngëneel yow yàlla wa jaayi habibika ak ci daraja sab sopp bi salla laahu taala na nga julli ala yow yàlla taala yow mi aji kaw alayhi ci wa sallama ta li ma lay ci nekk nii mooy an tusaliya na nga sax dàkk di julli alayhi ci kaw yónente bi waaye na nga sax dàkk di julli bi aali ci kaw waa këram ña na nga sax dàkk di julli wa sax bi ci ay saabaam yépp waaye nag wa ala jamial anbiya yi ak mboolem ña ñu solo ñëpp wal mursalin ak ña ñu yónni ñëpp waaye nag wa ala jamii al malaikati ak ci kaw mboolem malayka yi kenn xamu nuñ toll wal muqarrabin ak ña gën a jege yàlla mu jublu ci fa tabarakallahu malayka yi gën a jege yàlla waaye nag wa maa ngi ñaan ba tey li ma lay ñaan ba tey mooy an tarda na nga gërëm an jamiha sahabati walis mboolem sahaaba yi waaye nag wa an tarxama yàlla na nga yërëm jamii al muslimina mboolem way jébbalu yàlla ñu góor ñi wal muslimaati ak way jébbalul yàlla ñu jigéen ñi al ahyaa way dund minhum ca ñoom wala am waate ak way faatuñu bu yàgg innaka naka yow mujibu daawaati yow yaay aji nangu ñaan ci cooy sëñ tubaa dégg nga sëñ tubaa nee na ko yow yàlla de li ma lay ñaan te lépp ci sa ngëneel ak ci darjaay yonent bi salaay salaam ci darjaay sa sopp bi mooy jullil ci kaw yonent ba faw ak waa këram ak saabaam yi ak mboolem anbiya ak mursalina waa ak mboolem malaayka yi ña gën a jege borom bi ko taala ñëpp jullil ci ñoom waaye nag mboolem saxaaba yi ndax saxaaba yi moom ngërmal yàlla lañ leen di ñaanal waaye nag na nga yërëm mboolem jullit ñu góor ñi ak ñu jigéen ñëpp moo xam ñi nga xam ne dañuy dund doon ay jullit wala ña faatu bu yàgg ñëpp fa tabarakallah na nga leen yërëm cooy kii moo laabire daan na ko yow kat yaa aji nangu ñaan ci mu ne ko ba tey wa an tataqabala yàlla na nga nangu yow yàlla mi nii jëlee ci man jamihama mboolem lépp loo xam ne sadara gongeeku na mi nii bàyyi ko ci man minal baat ci ay xasaayit ci ay bind wal mafoolaati ak ay jëfin ak ay jëf wal maqoolaati ak ay wax wal manwiyaati ak i ay yéene fil hayaati moo xam ci biir dund gi wa baxdal mamaati ak ci gannaaw faatu amin yàlla nga nangu ñaan amin yàlla nga nangu ñaan amin yàlla nga nangu ñaan amin yàlla nga nangu ñaan rabbal alamin yow yàlla mi borom bi defi ci suñ tuba mu ne suñu borom maanaam yaa nga nangu jëlee ci man mboolem lépp loo xam ne bind naa ko ci ay xasaayit al maktubaat xam nga jam xola maanaam lépp lu sëñ bi bind ay maktubaat maktabut seyxul xadim boo léegi ñu naan maktubut seyxul xadim mooy mbindum seyxul xadim ay baat nag mooy xasaayid yi bind yëpp yëpp yëpp mooy baat mooy baat moo tax ma ne maa ngi la ñaan ngan nangu jëlee ci man mboolem lu gongee ko bàyyi ko ci man ma bind ko ci ay xasaayid ci ay mbind wala loo xam ne bokkut ak xasaayid yi ma bind waaye ay jëf la yoo xam ne dama ko war a jëf sama diggante ak yow wala loo ne lu ma wax la wala loo xam ne ma yéene ko rek yëpp moo xam fii ci adduna gii nag ma ko nangul waaye nag ak gannaaw faatu ba yëpp li may ñaan ci biir xasida yi ci gannaaw faatu ci bis pénc nga defal ma ko lépp nag ma ko nangul daal na nangu ñaan yow mi nga xam ne yaay borom maa ngi tàmbale waat xasida gi ci tur yàlla arrahmaani bur buy xéwalaa kon bépp mindeef ci àdduna arrahimi tey ajëram ku soob ci àlaxira wasala yàlla na nga julli àlla yow yàlla ala sayidina ci kaw sunu sang bi Muhammad nabiyi mooy sab yónnent bi solo ba noppi waaye salaati wa ali na ñëw ba ci waa këram sax bi ak saabaam yi wasalama tama doolikoolu doolikoolu te wa qawluka sa wax de alxaqu lu dëggu la wa wax du ko ta dële bi nga dële muy digg gi nga dige as sidqu lu dëgg la li nga wax nag moo nekk nii yaa wax ne faskuru nii tudd leen ma askurkum ma tudd leen ba tey yaa wax ne waskuru sant leen lii ñeel ma man yàlla wala takfuru ni te bu leen mu weddi li nga Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa nag yow yàlla damaa ñëw ngir ñaan la parce que yow yaa wax te sa wax lu dëgg la waaye yaa digg itam te sa dële lu dëgg la li nga wax nag moo nekk nii yaa wax ci alquran ne tudd leen ma ma tudd leen borom xam-xam yi nañ ci ana lan mooy nit ki tuddee yàlla ana lan la ko yàlla tuddee waaye lañ ca joto sara mooy dañ képp kuy tudd yàlla ci mbooloo yàlla tuddee la ci mbooloo mi gën mi ngi ko tuddee loolu Sëñ Tuubaa moo ñu ko firil nee na sakar lil jamilu henda jundikaa yaa xayra jaarin xad maxasto indaka nee na yàlla day dajale mboolem malaayika yi ca piyam ya di waxtaane sama ñàkk borom gi loolu lu ko waral mooy jàkk yi nekkoon ak ci biir nit ñi di tudd yàlla moo tax léegi suñu borom da koo far gërëm ba noppi day dajale malaayka yi di wa di waxtaanee maanaam mbaax ak sëñ Tuubaa gi xala la si akramani bi kaw ni kaw ni nee na maanaam kaw nu boo dugg rek Ahmadu Omar rek lañ fay nekk cooyi maanaam Ahmadu daal mooy ku kenn xamut malaayka yi loolu rek monde boo dugg ci monde suñu borom yi rek maanaam loolu lañ fay nekkee kon nit ki su fekkee danay tudd yàlla moo xam mu tudd yàlla di wéet moo xam muy tudd yàlla ci biir mbooloo nag wóor na ko nit ki lu muy gàtt-gàtt xel xam ne ne yàlla dajale ay malaakaan di waxtaanee mbaaxu nit képp ca piem ya te yow yëgoo ko loolu moo ëpp doole ngay ngay tudd yàlla fii te yàlla nee na ma tuddee fii rek ma tudd la ci mbooloo mi gën bi ma tuddee kon nag tudd yàlla mooy loolu moo tax mu ne yaa wax ci alxuraan ne tudd leen ma su ko defee ma tudd leen waaye sant leen ma bu leen ma weddi mooy damaa bëgg xéewal yi ma leen di defal na ngeen ma ciy sant te bu leen sul njekk yàlla nag ñi muy defal xéewal ba noppi te duñ ko sant ci jaamu ko duñ ko sant ci jaamu ko ci seen cër ya ñooñu ñooy ñi weddi moo ñi sul njekk te Sëñ Tuubaa nee na lahoo sukuuri bilaa ko fóori yàlla moom dong la ñeel samay cant te du ma sul njëkk duma ma ko wedd mukk ndax wax wane si minu fi daay fu ma jàqe mu may dimbale kon nee na yaa wax ne faskuroo nii na ngeen ma tudd askur askur ku ma di leen tudd waskuroo na ngeen sant li ñeel ma sax ca dakk wala takfuroo ni tëbbu leen ma weddi léegi nag subaa lay ñëw wax nag ne wuyu na yàlla ci wooteem bopp yàlla noonu yàlla defal dégg ak topp wasalaamaaleykum